maaleykum je me présente comme Waly Sow euh, commune Thiès Ouest président du mouvement Tous Ensemble Defar Sénégal ak le président Macky Sall di nuyu tous les Sénégalais d'abord euh, plus particulièrement euh, suñu sëriñ bi nekk bi di sëriñ Saliou Touré vraiment mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba sañ ñoo def dara vraiment te du ci coobareem kon ñoo ngi koy tàgg du nuyu tous les Sénégalais di nuyu tamit suma mbokk yi toog fii nga xam ne ñoom vraiment c'est des gars du président Macky Sall vraiment maa ngi leen di nuyu di leen saluer vraiment di wax ni lii nekk fii le mouvement san ensemble defar Sénégal bi ñun ñoo ko sumandoo ñoo ko bokkandoo ñu ngi ciy yëngu ñoom ñëpp ñu ànd ci ngir jàppale président Macky Sall. mu tiitaange parce que dama na alhamdulilah bi ah, parce que un Waalisien qui avait toujours pris son engagement de vraiment gérer pour le président Macky Sall d'œuvrer pour le président Macky pour le Sénégal pour l'émergence du Sénégal defe naa ne je profite de cette occasion pour remercier vraiment les gars qui m'ont venu en appoint muy euh, des mouvements de Dakar des mouvements qui sont proches du président des mouvements yoo xam ne ñoo jël seen propre engagement sans sax accord le président Macky plus particulièrement di ci leen ki nga xam ne daal vraiment moo di euh, euh, la première dame euh, Marème fay Sall di ko jaar ci rakam yi nga xam ne mooy Ami Collé Faye Ami Collé fay vraiment je remercie à travers Amadou Moustapha Kane bi nga xam ni c'est mon frère banquier qui à Dakar vraiment qui a vu mais vraiment mes engagements yi nga xam ne wàllu ci le président Macky Sall mu ne de trouver solution comment trouver solution mooy c'est un citoyen boo xam ni il a vu que ni intérêt moom mu jàppale président Macky Sall parce que dañu toog waxtaan ma ne ko président Macky Sall c'est le meilleur des présidents depuis l'indépendance mu ne effectivement ça c'est vrai parce que ma ne ko nag grand vous n'avez pas droit à croiser les bras ma ko man Waly Sow je là en tant que président mouvement tous ensemble defar Sénégal jël ko pour jàppale président Macky Sall bon amul benn leader Thiès nag boo xam ne mun nga maa sax venir en appoint mais di sant yàlla parce que bi ma gisee euh, euh, Amadou mu ñëw vraiment engagé wu fexe ba décrocher la sœur de la première dame ñu indi ko mu ànd man en tournée. tournée bi nag di wax leader Thiès waaye ne du dara du dara ñun on n'est pas en concurrence avec les leaders yi fi nekk. xanaa dañ la ci mere woon non dañ ciy mer dañ ciy mer parce que parce que bi ko defee léegi am na ñaari leader yoo xam ne ils m'ont appelé astafurlah ñaari poulain ak benn leader. saw je veux qu'on qu'on se parle ma ne non man man le parler laa dama ko teg fële instant je ne fais que faire comme le président Macky dépassé nañ moo euh, jamonoy wax. comme que mbir la moo xam ne chaque jour doon naa ko def te mus ñu ma cee jàppale su ma demee nag ba sama frère Amadou Moustapha Kane décoré si nga xam ne moo di la première dame mi nga xam ni moom mooy yor euh, le mouvement de l'émergence. mu yor ko muy soxna Ami Collé Faye di œuvre pour la première dame pour la réussite du président Macky Sall en 2019 ñëw copte ma ma mën ñu mënul ñoom parce que beaucoup de frustrés yoo xam ne sama ay yaay samay tante ñi daan gañeloo président Macky Sall ba tax électorat leader yi fi nekk di balballu seen vitesse dafa dafa réduire ñooñu ñëpp ay président dañoo mer man xam naa leen ñoo ma jur jox nañ ma cër jox gis na sama engagement je suis allé envers elle waxtaan ak ñoom jël ami Kolda Faye ànd ak moom déroulé accompagné de monsieur euh, Mamadou Salif Sow de Kolda un gars ne rate jamais l'occasion de faire du bien pour son pays pour sa nation et pour le président Macky Sall ñëw indil nañ ma ko fii ñu ànd def ci les visites les chefs religieux ak beaucoup d'étudiants ba nga xam ne bàyyi na fi sax ay bourses yoo xam ne da ko jox tur président euh, nga lu tax yi soxla muy assistance aux amuñu ko les leaders Thiès waa. Ah, ko. du ma ni defuñu ko ko mais euh, defuñu li war man ndax ñii may dem man ku ma ci dem sincèrement parler bu dagoon mu lim seen tur ku ma ci dem même chose nga may wax mooy ñun sincèrement dañu utiliser dañuy ndax man leen léegi ndax amatul ni ñee ñoo soxla woon mais président Macky Sall moo soxla. président Macky Sall moo soxla man tey bi ma koy def nii li tax parce que ils ont ils sont au courant que ni j'ai reçu le coup de fil d'un frère du président muy Hadi Sall moo nga xam ne mooy le mouvement mooy serre bi mooy euh, comité d'entreprise euh, euh, kii je ne sais pas comité d'entreprise républicaine bi moom moo koy mooy CRD mouvement boobu ñoom ñu yëg nii j'ai reçu un coup de fil Euh, boo xam ni c'est le frère du président Hady Sall moo ma woo dégg engagement jaarale ko sama frère Moustapha Kane mi nga xam ne mi ngi nii je le de passage mi ngi nii son grand frère est parce que bu fekkente noonu du un gars très engagé son grand frère bi là muy vraiment Baro du gis euh, moom depuis son retour de Mauritanie il soutient le président Macky Sall sincèrement par ak engagement te boobu mu may jàppale nan moom vraiment président Macky Sall ñëw bay songu di jàppale président Macky vraiment map kii nga gis nii mu toog it vraiment fekkente ni li dugg concurrence duñ fi ñëw parce que sama fii suma doom la suma doom la suma doomu grand frère la muy mbay am na vidéo yoo xam ne jël nañ ma ko sax may séddal ay ndogu pour le président Macky Sall moom mu ngi teewoon taxaw moo représente tous les jeunes de Grand Thiès si jàpp ci mouvement bi du yëngatu coup de fil boobu nag xaadi le président Macky Sall frère am boobu xaadi jël coup de fil remercier ma jaarale ko ca Modou Moustapha Kane loolu xëy na jàpp na yëngal la seen fit mais dama xam leen ne ñoom dañoo ñëw uniquement pour li président Macky Sall mënu woon a am fii à Thiès ñu def ko fi sincèrement parce que man am naa sama nitu bopp am na ñeneen ñoo xam ne am nañ seen nitu bopp. te mënuñoo jot ak leader yi su fekkente nag buntu ñu fëgg mu tëju mais dañoo gis ñoo xamante ne ñii il oeuvre pour le président Macky Sall te man dama jàppe nii le président Macky Sall bu affaire am na tuuti loo xam ne soutenir nañ ko ko à man ni ma engagé woon yow Babacar leer na la mouvement tous ensemble de Sénégal durant pendant sept ans je suis le président Macky Sall boddiwu ma xiiroo ma ŋaayoo ma li ma war naa ko def en tant que citoyen parce que Macky Sall c'est le sauveur de ma nation je le ko di leen wax mouvement bi nga xam ne mooy CRD bu xaadi rakku président Macky Sall mouvement bi nga xam ne mooy mouvement de l'émergence bu Soxna Ami Kolla Faye mouvement bi nga xam ne mooy mouvement ensemble pour le Sénégal bu Mamadou Salif Sow ñooñu c'est des vrais combattants ñoom ñoo ñëw en association avec ki nga xam ne mooy waali saw président mouvement tous ensemble defar Sénégal soldat guerrier di président Macky Sall bu engagé wu en 2019 Babacar boo gisee sama tenue bi ma sol xam nga tenue bi tenue cérémonie kii tenue de combat vers la. man man je parce que man doon naa kaas man leen Thiès bi fi Cheikh Kanté sa yaa ngi ko fàttaliku na teg tànkam. en tant que citoyen en tant que ministre président war a jàppal président Macky Sall mais cinquante dafa dugg si gars ba cinquante daw maa bu ngeen xeex cinquante daw bu n'avez qu'à être à la disposition des populations Macky Sall les a tous favorisés Macky Sall les a mis dans de très bonnes conditions amul kenn ku ci sonn mais pourquoi ñuy laqatu tey koo ci téléphone même les les poulains da di woo pour yóbbanti leen doo jot man je comprends pas man daal li may maa ngi nii Waly Sow c'est la solution. Avec l'appui de Sorna Ami Kwalafay de Dakar, avec l'appui de euh, Monsieur euh, Hadi euh, Hadi Sall, bu CRTR bi maa ngi koy remercier de passage parce que coup de film boobu encouragé trop parce que yàgg naa ci président Macky Sall mais musuma dégg ku jege proche président Macky Sall woo ma ne ma Waly merci te sept ans nga koy def yow xam nga li may daj kon donc Khady maa ngi koy remercier de trop. ki nga xam ne soxna Amy Collé Faye nag moom faamu Thiès moom sincèrement ñu ngi koy gërëm gërëm goo xam ne am fu mu toll parce que nee nañu buntu tijjeeku na. man sama yóbbantal buntu tijjeeku na te man seen ñëw bi jaral na mu lu ne dégg naa sa président Macky Sall ñenn ñi ñaan deuxième mandat bi jaral na ko lu ne man Waly Sow bakkan laa ci gar ak le mouvement tous ensemble defar Sénégal. parce que tamit li may wax la j'ai toujours dit que ne on peut pas dire l'APR à Thiès sans citer le euh, monsieur Abdou Mbow sans citer mu Augustin Tine tamit comment les man bu fekkente ni dama ki man kilifa ku Babacar man kilifa laa ci wàllu politique. parce que depuis le parti socialiste PDS c'est des coptes ñoo xam ne Macky Sall moom ñoom confiance woo leen mais ils n'ont pas la formation politique ils n'ont pas la formation socialiste. parce que li la ko woon mooy année bii président Macky Sall ni Thiessois infrastructure ak gogo mais li li mu soxla dëgg-dëgg ko moo grand l'a dit tout à l'heure Baro. parce que c'est un grand qui fait toutes ses moom mi fi ñëw ne li di Thiessois li ko jaaxal mooy président dafa woo toujours social. social la président Macky Sall woote toujours mais tamit. ñun nga xam ne dañoo soxla wala ay eh, problème yoo xam ne da nga koy jànkonteel ci militant yi yow ñu jiital boo demee fëgg ki nga xam ni moom nga yaakaar ni boo ko fëggee problème bi rek la kooku doo ko gis nee naa la que le président Macky Sall change de stratégie ñun on est venu créer un deuxième groupe pour la l'APR mooy groupe B ils ont tous les moyens qu'il faut mais ñun on a pris nos engagements di ko ci def di toog engagement lu ñu jël bu mat sëkk di ko def di toog te amuñu lomb tànk amuñu dara xam nga lu tax barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul man nee naa la Macky est irremplaçable ces gars qui qui veulent veulent bouger le président Macky Sall là ils ne font par déjà ñoom gis nga temps yi opposition gi déggatu seen bruit y a que le jeune Sonko là qui fait le te il n'a qu'à se parce que Sonko il est trop petit pour le Sénégal. ah non non non gars yi jógee non non euh, dañoo melul ni Wally parce que lu ñu ma def ñoom defuñu leen ko gis naa gars yu bëri di mer di dem. waaye nag na ma yàlla jégal am na ñoo xam ni seen yii dem jarul ñuy dem bu fekkee ne président Macky képp lañ gëm waaye ne leen jarul jaay seen sax def ci. parce que pour man su Macky Sall bu ñu ko taamoo ba xam ne moo gën ci réew mi pour réew mi dox nit ñëpp jàpp. ndalee na war a jaral ne man moom je te dis que ne Babacar déggu la ma la wax. Babacar yow man temps yi may kaas dëgg-dëgg man benn mag benn Idriss Seck laa fi nekkaloon ma dem ba si yàgg l'incompétent Thierno Alassane Sall daal di replier daal di bàyyi. ma toog ba si yàgg Hadjibou Soumaré ñëwaat taxaw ñëpp contre le président Macky Sall kon ils sont tous contre man j'ai été abandonné par beaucoup de mes amis à cause d'affaire mais instant bi il commence à comprendre que le président Macky est irremplaçable c'est lire lañ topp jaruñu ko kon donc man un gars boo xam ne à motiver comme defuñu lool nag te gis naa ñi nga xam ne tey vraiment mën nañ ma appuyer pour que rek le minimum demee euh, déplacement biir Thiès proximité vers les porteurs de voix laa wax je suis en train de graves mbir yoo xam ne de vers les porteurs de voix des frustrés ñoo xam ne dañoo mer toog te gis ñu ku leen doy kon Macky Sall la ñu bëgg la pour toutes les femmes thiessois engagé wu nañ pour jàppale président Macky Sall mais jeunes yi ñuy romb di seen yoon associé wuñu leen ci non sincèrement parler man loolu ça me fait mal man je roule pour la jeunesse sénégalaise je roule pour la jeunesse thiessoise et je ne rate jamais l'occasion du bien wala dire du bien pour le président Macky Sall pour que mu gëstu les jeunes thiessois te xam ni am nañu fi Macky li tax mu war a góorgóorlu Thiès xam nga lan la tey Macky tey bu ñëwoon jàkkee Mouride gii wala jàkkee Toulouse na ñoo xam seen xol a parce que li ñu mën a xasee Macky mooy durant existence am Macky deful dara Thiès te Macky def dara Thiès weesuwul ñu mu fal Thiès teg ko fi nag wax dëgg yàlla man damay laajte ak Augustin Tine Abdou Mbow les trucs la gars yi fi nekk nii dinaaw dinaaw li ma leen teg ma ne ñu bàyyi cérémonie on n'est pas à l'heure des cérémonies on est à l'heure des proximités à l'heure de convaincre à l'heure de faire porter les voix au président Macky Sall pour mu gagner en parce que Macky c'est n avantage man daal de alerte à tout le sénégalais à tous le bonnes volontés ni leen nag ñoom nañ dugal seen loxo ci mbir mi. parce que Macky Sall est tenté de faire beaucoup de choses nañ dugal seen loxo ci mbir mi bu les bons Thiessois conseil ma leen que ñuy laisser les bras croisés comme ça man loolu conseil ma leen ko ne ñëpp ak tous ensemble bi ma wax pour le defar Sénégal mooy tous ensemble pour le président Macky Sall parce que Macky c'est le meilleur depuis l'indépendance Macky c'est notre avantage. li may tàggatoo daal mooy lii may wax daal mooy ba tey président Macky Sall la nga xam ne man Waly Sow mouvement tous ensemble defar Sénégal nekk commune Thiès Ouest je me décarcasse pour toi te nga xam ni fii man kese maa fi nekkoon di la geeral tey dara xewul Thierno Alassane Sall wàññeeku na ci kon il me faut un grand renfort ma taxaw taxaw ci kanamu jeunes parce que les jeunes na sont pas du tout contre toi le président Macky Sall li ñu lay renseigné Thiès nan la Thiès bu rebelle dafa ñàng pour lan la pour nëbbuñu la. pour di mën a jëriñoo ci yow loolu moom on veut que ça cesse les jeunes Thiessois yóbbante wax nañ ko mooy ñoom difficile luñu mais ils ne sont pas du tout associés à l'affaire man je suis prêt les ai déjà associés ce qui nous manque mooy que ñu ñu ñu imprégner leen carrément dans l'affaire ba ñu xam ne ñu ngi ci di remercier encore une fois loo xam ne mënut a ñàkk mooy mes frères qui m'ont soutenu dama leen ko wax ba Thiessois ba dégg nañu xam ne kii nga xam ne mooy Khady président Macky Sall coup de fil te nee naa ko coup de fil bi xaadi na déplacé wu ñëw fii seetlu ma pour son frère n'a pas de temps te yëg nañ li may def pour ñoom soxna madame Faye Sall jigéen ñi nee nañ ma barki Seexul Xadim naa leen ko gërëmal te xamal ñoom ñu ngi ci ginnaawam na fexe ba déplacé wu ñëw Cees seet leen jóge naa ci aji màgget cuun si talamin muy femme bu brave boo xam ne vraiment démb nekk naa ci moom ak ñoom Ndioba Sow yenn heures ñoom ñëpp naroon nañu fay ñëw ñu fekk émission mais dama leen ils sont en leen wax ni. parrainage n'est pas élection parrainage n'est pas élection lu leer laa leen wax parce que parrainage c'est trop facile il y a des voisins qui donnent leur pièce d'identité par peut-être voisinage bi wala dafa sakk la ruus la wala dara mais il faut bien euh, parrainer mais il faut essayer de fair voter l'art de faire voter faire voter nag mooy lan mooy am utilité ci sénégalais yi jegalee Thiès waa jegalee sénégalais xool bunt bu ñu fëgg nga tijji ko mais des des des des téléphones qui vont aux boîtes vocales laal loolu waxuñu ko parce que le président Macky Sall n'a pas besoin de ça président Macky Sall maa ngi lay ñi la ñu man maa ngi à ta disposition man ak mes frères on est en association en collaboration ak le frère de ton frère euh, Khady Sall qui m'a rendu très courageux ñoo ngi ak le euh, mooy euh, ñoo ngi ak soxna Ami Collé Faye bi nga xam ne moo yor mouvement de l'émergence ñu ngi ak Mamadou sali saw bi nga xam ne l'homme de Kolda moom moo yore mouvement ensemble de frères Sénégal kon man Waly Sow man maa yor mouvement tous ensemble Defar Sénégal ak le président Macky Sall loolu laa ko def te je à tout pour 2019 sénégalais ma ne na ñëpp jàpp te xam ne Macky Sall li muy def pour njëriñ Sénégal di remercier sama mbokk yi toog fii muy le frère de mon ami depuis fi remercier Mbaye ak remercier tous les jeunes Thiessois xam ne ku dégg annonce bi tamit xam ne na nga ñëw ubbi naa bunt yëpp nag soxna yëpp nañ ñëw te xam ni am nañu bunt bu leen yóbbu la ci nga xam ni kii mooy seen morom mooy seen tante mooy seen yaay mooy seen doom muy soxna Marème Faye Sall ak Ami Collé Faye ñoo ngi remercier ñëpp incha allah bi Macky 2019 ndam rek bu amul benn werante ci barke Cheikhul Khadim